daje lañ daal di amal ngir rek xool ana naka la ñuy def ngir mën a gunge xale yi ci lépp lu jëm ci mbirum entrepreneuriat ak nu ñuy doxalee lépp luy jëm ci wàllum entreprise loole nag ñu amaloon ko étudiants yi ndaxte jàpp nañ ni dina bokk ci luy mën a tax ñu xool ana naka la ñuy def ngir rek ñu mën a gën a jëmal seen compétence ci wàllum communication. bés bi tey lu ko waral mooy dañuy def Delta Innovation Camp. pour tey suñu ndaw yi ñi mun leen ñaax si bu la ñuy jëlee euh, seen vie en main parce que tey kenn xaaratul kenn euh, tey euh, dañ leen jox tey ci bës bii nii tey ci benn journée bi ñu passé ak ñoom dañ leen xaw a jox ay outils yi nga xam ne bu ëllëgee ñoom dinañ ko mën a utiliser ci seen jàng dinañ ko mën utiliser ci seen avenir. ci jamono ji nga xamante ni nii ñu ngi waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum réchauffement climatique Delta Airlines moom di xamle ni waajal nañ loolee bu baax a baax. ku ne transport aérien ne euh, pollution waaye tamit transport aérien rawatina Delta Airlines ñu ngi ciy dugal suñu loxo commencé di ci taataan di wàññi plastique bi ñuy utiliser di utiliser ay euh, matériel recyclé suñu biir avion yi. yile activité nag ñu àndi seeg ONG Junior Achievement ay at a nii mu yëngu si lépp luy jàppale xale yi ci wàllum entrepreneuriat. dañuy forme xale yi ci lépp lu jëm ci entrepreneuriat euh, woon leen. naka lañ mën a liggéeyee ñoom ci ay projet yoo xamante ne nii dina leen permettre ñu mën a am impact bi ñu soxla. dinañ amal njëriñ bu baax parce que dans dans tous les domaines comme finance dans le domaine aviation dans tous les domaines daal parce que tey taxawaayu tey bi yamul woon kese ci ci aviation mais ça parlait de tout quoi. bile activité doon lu ama am solo suñu sukkandikoo ci organisateurs yi lay jàpp nañ